ok alhamdulillah sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala wa sahbihi ajmain euh, jëloon nañu ab bind bu xaw a la nga xam ne mooy bakkaar yu mag yi tey nag ñu bëgg a dal yéen beneen bind bu bees te mooy suñu boroom yàlla daf ñoo woo ci tur bi gën a màgg bu mu ñu jagleel mooy yaa ayyuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm mu woo ñu juróom-ñetti fukki yoon ak juróom-ñeenti ci téereb yàlla bi loolee lañ bëgg a fàttaliku ko xamal ne ba nga xamee ne moo ci jiitu mooy fa muy wax ca baqara ci aaya 104 ba di wax ne ay yéen julit ñi yaa ayyuha la amanu laa taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina azabun alim ay yéen julit ñi bu leen wax li yahudi yi di wax naan ra'ina waaye wax leen unzurna ra'ina daanaka mooy sàmm ñu unzurna daanaka mooy sàmm ñu waaye borom mën a ne kaddu gi yahudi wax bu leen ko wax ndax ñoom kaddu googu dañ caa jëfandikoo pour ñu dégg leen waaye lañ ci jublu dëgg-dëgg mooy suñu def bi amma juri di nga xam ne ñoom dañ ci jublu rek ra'ina sàmm ñu suñu borom mu ne bu leen ko wax looloo tax loolu dafa nekk cosaan bu màgg bu dëgër buy wone ne yow jullit waroo nuru nuru lu yéeféer loolu moom c'est très grave na la sax yàq sa pas-pas mooy nga jublu bëgg mel na yéeféer nuru lu ko waaye it waroo nuroog yéeféer waroo nuroog yéeféer mooy lan mooy yow jublu nuru nuru lu yéeféer waaye li ngay def yéeféer yi dañ koy def loolu jullit da ko war a moytu moo tax islaam ni bu jant bi jógee di fenk bu kenn naafila buy so bu kenn naafila lu waral loolu ndax yéeféer yi dañ koy sujootal jamono joojee loolee moo ñëw ci nodd gi Bilaal di yëkkati keroog ba yenent bi di soog sahabaam yi am na ñu ne woon nañu benn clairon di ko ëf mu ne déedéet loolu yahud yi noonu la ñuy wootante am ñu ne nañu wut cloche bu ñuy tëgg mu ne déedéet nasaraan noonu la ñuy wootante nañu taal sawara mu ne majus noonu la ñuy wootante et pourtant yi ñoom dañoo bëggoon moyen pour wootante waaye maadaama am na ñu leen ca jiitu mu nekk seen mandarga yenent bi ne buñ ko def ba bàyyi yàlla xéewal ñu la nga xam ne mooy nodd gi su ko defee loolu ñu jàngal ko njaboot gi nañu moytu nuru nurlu ak yéeféer yi jublu ko musiba bu garaaw la ñàkk ko jublu it baaxul yal na yàlla wërsëgal ñu melokoo melokaanu lislaam moo sellal sox suñu pas-pas wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain